ngeen jëf mbokki internet yi jamono ji nga xam nak nag ci Sénégal gëd yépp ñu ko tek ci Cour suprême ak audience ba fay am niki tay jëm ci nak recours bu agent judiciaire de l'État euh, ngir nak euh, Cour suprême googu dal di kase li nga xam ne moo di décision bu juge Sabassy fay bu tribunal bu Ziguinchor bi ordonné nak réintégration Ousmane Sonko ci liste électorale yi euh, fofé nak wala fële sax ci Abuja li nga xam nak nag moo di Cour de justice bu CEDEAO daal dinay rejeté demande bu Ousmane Sonko jëmee nak ci li nga xamné ne dissolution bu partem eh, ci fatalé rek mom Ousmane Sonko ak avocat dañu daal di saisiroon cour bi ni mel waaye nag ci ponku yu wuute ponku yoyé nak mu bokkon ci sax li nga xamné ne eh, di radiation ci liste électorale bi nga xamné tamit cour suprême war na ci àddu ki tey tamit dissolution bu partem boobu di Pastef mom cour de justice nak bu communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest di CEDEAO nekk nag doon doon doon statué foofu ci Abuja kon nag daal dinay rejeté demande bu opposant sénégalais Ousmane Sonko ci lu jëm nag ci dissolution bu parti politique am boobee euh, ca jamono jooju nag cour bi moom joxegul li nga xam ne mooy décision am maanaam prononcé ci nag beneen aspect bi nga xam ne euh, bokk na ci li ñu ko doon euh, saisiré muy nag radiation Ousmane Sonko ci liste électorale yi kon nag ci audience bi nga xam ne amal na ko tey jëlee foofu ca Abuja ci le cour de justice bu CEDEAO bobé tranché une partie nak ci li nga xamné moy mooy coow dox ci diggante Ousmane Sonko ak état bu Sénégal euh, avocat Ousmane Sonko nak ñom dañu saisiroon cour bi rek ngi di sakku ci mom mu contester li nga xamné moy dissolution bu parti politique euh, bi lee di Pastef euh, te ko def di autorité sénégalaise cour bi nak daal di ci demande bu ñu mel jàpp rek ni dissolution parti bobé def nañ ko ci lo xamanteni dëppoo na ak yoon benn décision nag jamono ji li génnagul euh, ci nag yeneen aspect yi nga xam ne moom Ousmane Sonko ki avocat am daal di yoon nañ cay saisir cour boobe waaye nag loolee rek mënees na ko xaarandi balaa yàgg dara décision ba daal di wàcc jërë ngeen jëf mbokk yi li moo doon xibaare ci biir vidéo yeneen xibaar ci yeneen vidéo lay doon bu ci àllande laata loolu way leen di like di abonné ci chaîne chaîne ku dee gan ci page bi te abonné ko ñu ngi lay ñaan nga abonné activé sa su ko defee lu nu dugal ci vidéo nga bokk ñu koy njëkk a jot cant ak ngërëm ñeen na leen 14 régions du Sénégal kenn demul ngeen des diaspora